Moussa wëlbati ko tële xarit. ni yàlla day moo fi gën a mu diis ndax lu mu diis rek. ay xaritam ay xaritam la koy te wax na dëgg nag. te wax na dëgg nag. ah damay ci seeti kenn barki ci kenn barki démb. feebar. mu feebar. mu ah feebar de moom. mu ne ah, feebar de moom. jaam la bu ñuy yónni rek. jaam la bu ñuy yónni rek. yàllaa koy yónni. yàllaa koy yónni. ca ko neex. ma ko ah. ma ne ko kenn du wax ni. xam naa kenn du wax ni day. sañu ko sañu ko. sañ na ko. sañ na ko. waaye bu ñu sañoon it. waaye bu ñu sañoon it. beneen jaam nag. mu di ñu yónnee beneen jaam. bu dul feebar bu dul feebar nag. <laughs> su ko defee nag boo ñàkkee. su ko defee boo ñàkkee. la gën a metti. la gën a metti. nga ñàkk si sëriñ. mooy nga ñàkk si sëriñ. jigéen moo ma ko waxoon. benn jigéen moo ma ko waxan ba sama bàyyi nelawee. ba sama bàyyi nelawee. <laughs> mu ñëw jaale jóge Dakar. mu ñëw jaale jóge Dakar. mu ni mu ni. li gën a metti. li gën a metti. mooy ñàkk sëb sëriñ. mooy ñàkk sëb sëriñ. mu ni damaa luye woon ci sama kër. mu ni damaa luye woon ci sama kër. samay bokki murit. samay bokki murit. sëñ Moustapha Mbacke nelaw. sëñ Moustapha Mbacke nelaw. ma dégg leen rek. ma dégg leen rek. ñuy luur. ñuy luur. ma ñëw ma ñëw ni leen ni leen lu xew lu xew ñu nopp mënu nu dégg koo dégg làmmiñ mënu koo tudd làmmiñ mënu tudd mu ni bi sa bàyyi ne nag mu ni sa bàyyi ne nag ak ni mu diisee ci sama xol ak ni mu diis sama xol <coughs> ci laa xam ne ndekete ci laa xam ne ndekete li nit di ñàkk muy lay metti li nit di ñàkk mu lay metti ab sëriñu ca raw ab sëriñ ca raw lu diis la. diis la. ngeen ñàkk sëriñ. ngeen ñàkk sëriñ. ñàkk wayjur ñàkk wayjur. ah waaye nag. waaye nag. ki ko sañ kenn la kenn la. mooy borom bi. mooy borom bi. te ñoom nangu nañ ko. te ñoom nangu nañ ko. koo xam ne kii. koo xam ne kii. bala ñu laa jël. bala ñu laa jël. laaj la laaj la. bu la gënalee. bu la nga dem nga dem. bu la gënalul bu la gënalul. nga toog fi nga toog fi. toujours nag. toujours nag. la leen di gënal. la leen di gënal. dellu dellu. ndax fii. ndax fii. këru fitna la rek. këru fitna rek la. ak coono ak coono. yonent bi alayhi salaatu wa salaam. yonent bi alayhi salaatu wa salaam. yàlla def ko ni. yàlla def ko ni. tànnal tànnal des fi des fi te doo nekk bu yonent te doo wala nga dellu si ci man wala nga dellu si ci man mu ne ko axtaaru mu ko axtaaru murafaqat murafaqat ahli sama mu ne ko kon pareel mu ne ko kon pareel malakul mawtee ngi ñëw malakul mawtee ngi ñëw mu woo sayidatuna Fatima mu woo sayidatuna Fatima ni ko ah ko ah sama mission jeex kat te yàlla tànn loona ma yàlla tànn loona ma tànn tànn naa dellu si ci moom dellu ci moom Fatima siggi Fatima siggi dem ci bunt ba dem ba bunt ba rangooñam dal ci dënnam dal ci dënnam mu woowaat ko mu woowaat ko mu ñëw mu ñëw mu déey ko mu déey mu siggi mu siggi ree ree lan la ko déey lan la benn weer laa lay juróom weer laa lay rawe bi yonent bi noppaloo. bi yonent bi noppaloo. ba ñu denc ko ba ñu denc ko. Euh, Aïcha ni ko. Aïcha ni ko. man de. man de. gis naa sa baay. gis naa sa baay. woola woola. déy la déy la. nga siggi jooy nga siggi jooy. dem ba ci bunt bi dem ba ci bunt bi. mu woowaat la mu woowaat la. nga siggi ree nga siggi ree. lu ko waral lu ko waral la. mu ni ko mu ni ko. bu njëkk bi bu njëkk bi. daf ma wax ni. daf ma wax ni. mission jeex na. mission jeex na. ma ngay dem ma ngay dem. ma xalaat ma xalaat waaw waaw adduna ji yonent bi nekk adduna bu bi nekkatul man lu ma fay def man lu ma fay def moo taxoon ma jooy moo taxoon ma jooy mu woowaat ma mu ma ni ma ni ma juróom benn weer laa lay rawe juróom benn weer laa lay rawe moo ma bégloo loolu moo ma bégloo ba ma ree ma ree kon nit ñi bokkuñu ma ne kon nit ñi bokkuñu am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne ku ñu leen ni woon juróom benn weer la fi dese ku leen woon juróom benn weer la fi dese bunt bi ne daañ fa taxaw bunt bi ne daañ fa taxaw <laughs> ni lu ma def yàlla ni lu ma def yàlla <laughs> waaye seen toog fii waaye seen toog fii ak seen dem ak seen dem ñoo yem képp ñoo yem képp kon kon yàlla moom mu doon liggéeyal yàlla moom mu doon liggéeyal ak magam ju baax ja ak magam ju baax ja nga xam ni nga xamante ni wax na ci moom lu nekk. wax na ci moom lu nekk. ndax taxawaayam. ndax taxawaayam. gannaaw nattu ba. gannaaw natt ba. kenn taxawu ko. kenn taxawu ko. ñëpp xam ko. ñëpp xam ko. ñoom ñoo ñoo koy teeru. ñoom ñoo ñoo koy teeru. incha allah incha allah. tam. yéen ngeen continuer rek. ngeen continuer rek. wéeru ci ñoom. wéeru ci ñoom. ñu wéeru ci yàlla. ñu wéeru ci yàlla. damay wax ni. ndax damay wax ni. ku jonkan. ku jonkan. te wéeruwoo. ku wéeruwul. te te wéeruwoo. ku ku la bëmax nga daanu nga daanu. te ñoom nag ñooy suñu ñoom nag ñooy suñuy wéeruwaay. bu ñu wéeree ci ñoom it. bu ñu wéeree ci ñoom ku ñu bëmax. ku ñu bëmax. du ñu wàññi dara. du kon. taxaw leen rek taxaw leen rek. jàppante jàppante. liggéey liggéey. li Serigne Darou def. li Serigne Darou def. ñëpp xañ nañ ci. ñëpp xañ nañ ci. ndax yàlla. ndax yàlla. mbaa xam dafa toll àgg ci. mbaa xam dafa àgg ci. ni nga toll. ni nga toll. moom nga koy jëfale. moom nga koy jëfale. ni mu tollu moom ni mu toll yàlla. moom la lay fayee moom la lay fayee. moo tax bu la fayee. moo tax bu la fayee. sa ñëpp xaj sa ñëpp xaj. yal na ko fi yàlla yemale kon yal na ko fi yàlla yemale yàlla may leen gudd fan yàlla may leen gudd fan ngeen des fi lu yàgg ngeen des fi lu yàgg ñun ñun dañ leen di gunge rek dañ leen di gunge rek da ngeen gën a ñeme ba ngeen gën a ñeme ñu dem bàyyi leen ñu dem bàyyi leen fi ngeen continuer seen ngeen continuer mission bi loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan sama baay dafa daan wax ni sama baay dafa daan wax ni gunge day gunge day àgg du ca baax àgg du ca baax nag waaye gunge ki ngay gunge waaye ba mu ñemee it ba mu wàññiwul dara kon tabaarakallaahu. yal na ko yàlla yemale. yal yàlla dëppale leen. may leen wér. may may leen kàttan may leen kàttan. bu ngeen mën a taxawee. bu ngeen mën a taxawee. ba bu bi ngeen liggéey bu rëy bi ngeen fi fekk. du ci yàqu. dara du ci yàqu. ñu ngi leen di jaal bu baax a baax di leen masaw jaa ngeen jëf sëriñ bi daal ñu ngi delloo siyaar yi ak nuyoo yi ak ak njaal mi ñu la ko waxoon fee léegi ndax fàttaliku nañu bi fi Alaaji sëriñ Sall jógee da nga ñëw di ko ko jaale seen jataay boobee la ngeen fa waxtaane ci liy dundal diine liy dundalu bokk fàttewuma ci dara mu nekk jataay boo xam ne jataayu njaala ko waraloon waaye jur na mbégte itam nga bàyyi fi mbégte mu rëy rëy moo xam ne ba léegi mi ngi fi nag loole mm, lii nga wax léegi kaddu yi ak yi nga wax fële ci Serigne Abbas wane na ne yow li ma doon junji mm, firndeel nga ko moo di boo sañoon ñëpp doon benn boo sañoon lislaam du am benn benn xaar ma yàlla diggante ak beneen barab ba ca des te seedes uh, wax seedes jëf da ko gën a wóor te da koy jëf yàlla mi nga xam ne nag ku mu téye nga dëgër yal na la téye te dëgëral la yéen yu rafet yi nga xam ne yaa ngi koy dox ci diina ji dox ko ci bokk gi yàlla may la ci kattan bu baax a baax ndax euh, nit ñi kenn ku ne da am foo féete waaye dina am loo xam ne da ko gëm ci sa xol ni bët di xàmmee couleur gu weex gi ak gu ñuul gi ni la ni la xol di xàmmee dëgg ak caaxaan ndax nag bi nga gisee couleur gu weex gi ak gu ñuul gi wala gu xonq gi sa làmmi jaar na ci ne lii daa weex lii daa ñuul wala waxoo ko xol bi it noonu lay gisee dëgg gi ndax jaar na ci wala jaaru ci waaye xam nañ bu baax kuy defar ak kuy yàq yàlla nga xam ne moo la ko baaxee yàlla na la ci gën a taxawal bu baax a baax sëriñ Abdou ñu koy seereel léegi ci kanam sëñ Abbas lu ëpp ñetti at a ngi nii paate ngi nii Touba Darou Mouhty Tiwaawan daar moo ti tuuba wenn weer duñ ko sént ci fukki weer yeeg ñaar mu Muharram ba ñu dellu siwaat ci Zulhijja te du te dañ ci ba ba ba ànd ne nii la ñu defandikoo noonu loolu mooy boole lislaam yal na la ci yàlla gën a jàppale bu baax a baax njaboot gi itam lii nga ci wax sun xel dal na ci ñoom lool ndax li nu ànd ak seen way jur fukki at ak ñett yu manqué tuuti yi gisuñu ci ñoom lenn loo xam ne lu ñu mën a wax ne ñaawal nañu njortu suñu digganteeg ñoom bu ñu gisatul seen way jur amu ci dama leen koy faral di misaal ñoom ci ne njabootuk sëñ bi bay seex dañoo mel ne ñoom ñëpp ay doomi bàjjen lañu kenn ku ci nekk jàppe nga sa sa sa sa moroom ni sa bopp waaye tëréewul nag ki war a jox kilifteef da koy jox ki mu koy jox loolu bokk na ci li leen di gën a dimbali te xam naa ne eh, sunu borom eh, dina ci dina ci dina ci dugal kattanam ndax sëriñ bi liggéey na ko it nag fukki ak ñettam yi liggéey na ci loo xam ne eh, ñeent fukki at sax liggéeyu ko ci biirug bokk ci ci diine ji ci ci liggéey borom Daaru Muxti ci yoonu Serigne Touba yi def na ci loo xam ne ku ku ku ñemee dëgg ku nangu dëgg ku nekk nangul nga ko ko Serigne Cheikh ngi nii ñaari fan yi kër bërki bi ba mu demee ba léegi bis bu nekk sëriñ bi dina woote di laaj ma gis mu doxe ci noo moom sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar musuma gis mu doxale ko ci ci benn bi loolu yëg gi waaw tey ci bëccëg waaw waaw mu àgg ko foo xam ne euh, ngir ngir liggéey bi nga xam ne wóoroon na ko ne nii la taxawee te te dafa am mm, dafa am jamono sëñ Abdul Xudus ab jarbaatam boo xam ne dafa dafa ne sëñ Abdul da ko yónnee aw fas wu baax a baax mu ne daal man lu ma ko defal daal ba mu di ma jox euh, fas wi daal man dafa maa jaaxal ma ne ko sa kilifa da ko dimbalee noo xam ne doo ko yëg mu ne ma ci naka ma ne ko ndegam duñ ko ne ñëwal sa surga bi moo fi def nangam moo fi wax nangam kay lijjanti ko yaa ngi koy dimbali waaw ne xanaa kon day loolu de ma ne ko loolu la ndax am nga am nga yeneen i nawle yoo xam ne te xëy na am na ci ñu melut noonu kon yaa ngi koy dimbali kon ñoom ñii nag nañu xam ne foofee sëriñ bi jaaroon teg fa seen tànk incha allah fas nañ fa yéene teg seen tànk te ñu gëm nañu ne ñu bennoo ndax moom mi nga xam ne mooy mag sëñ Abdou nekk ci bopp bi kenn ku bu fi nekkee kenn ku nekk doo xam lu ne sa kër lépp ci nekku sëriñ bi len lépp këram lañ koy def kon loolu kon tey waxi ne naa ko démb eh, dajale aw nit ak ak téye aw nit moom kenn la ko jàngalaat ginnaaw sëñ loolu moom def ko ci kanamam ba ba kon ko moom itam ñu ñaanal ko ñaanal njaboot gi te di la fedd feddali ne njaal yi yàlla buñ yàlla buñ leen ko gaaw a fay te ñaani suñu boroom nangu ko te yàlla dëgëral la kattanal la lii nga xam ne moom nga dox ci diggante bi jóge ci Serigne Cheikh Sidil Muxtaar mu wóor leen ne dëgëral bokk gi ak diine ji moo ko moo ko waral ndax xammee nga nee naa léegi ci kër Sëñ wane wanewaat nga ab ab bind bind bu yees foofu mm. leson la boo xam ne ndax kenn ku ci ne sañ ngaa dem jaale ji fa xew-xew bu am waaye jaare ji ku ci bunt ba nag aw jàngalewaat la beneen boo xam ne te loolu mooy mooy li war a am loolu mooy li war a am te moom moomee fu dara yëngatoo fu nekk sëñ Cheikh Bara Laat mi mandargale ci du ci gàmmu yi du ci màggal yi waaw da nga koy yërëm waaw waaw Wow, wow, mu wow. waaw waaw noonu la nangule sëriñ bi moom itam moom it beral ko nag ak ñaan waaw moom la nangule sëriñ bi di Diko, diko, ko di ko ko doxal di ko di doxal kon daal ñu bañ laa téye ndax coono bi euh, teg waaye nag dinaa ci sànn ñetti kaddu rek ndax sëriñ Bass mi moom démb damaa waxaan wax fii ci mbooloo mi loo xam ne sax bëgguma di ko ndax lu àddina bépp seere la mm-hmm. ñun ñii dañu ñooy doomi Baye Cheikh waaye bi mu yoree liggéey bi fukki at ak ñaar yi mu wax liggéeyal ko sëriñ bi jëfal na sëriñ bi loo xam ne ñun ñi kenn mënu ko ci man toujours maa ngi ci avion yi du xam sax li fi xew te lool su ma su ma ko mënee moom mii moo tax li mu yor liggéey bi sëriñ bi tam waa kër sëriñ baa ngi nii ñun ñëpp mësuñoo toog benn bis ni suñ bas def na loo xam ni neexuñu jëwee ko ko wala ñu wax loo xam ne bu toogoon duñ ko mën a nett li mu liggéeyal sëriñ bi sëriñ Abdou Khoudous mi nga xam ne mooy waajuram sëriñ bi toog palaasam gannaawam ni mu nangu la Baye Cheikh liggéey ci wetam def ko woon ci nekk sëriñ Abdou Khoudous dëkk bi itam lii mu fi def ci alalam ci ñaqam boole ko baat bi kenn ku ko fi mën a def wala ko ko nangu mën nga ko man mën nga ko yor doon doo ko nangoo ni ko nangoo beneen bi ci des mooy sa ñëw bii fii man de ci sama xolu bopp xàmmewu ma ko ak alaaji Malick mu ñëw fii tey ndax say at fi nga tool wóor na ñëpp ni jóge Tiwaawan ñëw fii ñëpp war nañ la ko mën a jégal man de boo ñëwul woon yónnee ndaw duma xalaat sax ni war ngaa ñëw fii keroog bi bi ma demee Louga dama ne Aliou Diop man de li ma doon ñaan nga bañ ñëw ci gàmmu nga ren ci la bokkoon ndax at mu jot boo fi ñëw maa yow fay nekk ba deux heures du matin dama yërëm am na at bo xamni mak Tanor ñoo ànd ñëw fa nga ne dam job Mansour nel Abdou mbake mi bëgg na ma fassante ak ko kóllëre ndax and ak Ousmane Tanor jeng dugg ci bass yombut ku gore ku am kóllëre ko man dam job Mansour lu ni dana la yóbbu ba ci Serigne Abdou tay la la koy door a nettali ñoo ngi lay sant bu baax ci tour Serigne Bassirou mi ak njabot Serigne bi yëpp tay képp ku dëkk daru musi wala nga bok ci yoni suñu Cheikh antame joge daru ak ñim fi fekk ñëpp. ak ñi koy dégg te fekkewuñ ko ku dégg jataay bi tey soxal dana sedd jël ñoo koy ñoo ngi koy ñoo béggee bu baax jël ñaanoon nga dundaal lu ëpp li nga amoon tam ànd ko wér nag waaw